barab bi mooy barabub sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Khadir Mbacke doomu Cheikhul Khadim la ak soxna Aminta Kanni Bousso mu nekk itam mbokkum sëriñ Touba Cheikhul Khadim ci wàllu gune ndax nijaayu Cheikhul Khadim moo weññi waajuram wu jigéen muy soxna Aminta Kanni Bousso mu nekkit koo xam ne nii bokk na ci doomu Cheikhul Khadim yi gën a bokk ak Cheikhul Khadim ci wàllu deret waajuram doomu nijaayu Cheikhul Khadim la moom itam mu feeñe jamono ci ndaam daaru xalimul Xabir ci ëttub sëriñ ndaam Abdourahman Lo ginnaaw bi nga xam ne nii nag waajuram maa ngi fa woon di soxna Aminta Kandi Bousso moom itam mu jaar fi mu war a jaar ci am njàng ci niñ ko waxee waaye tim mu toppoon ci ginnaaw ay magam Cheikh Mamadou Moustapha ay nijaayam yar ko lu mel ni Serigne Mbacke Bousso Serigne Mbacke Kandi ba ci Serigne euh, Ibrahima euh, Bousso ba ci nijaayam Serigne samba Kandi Bousso ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ak ay waajuram benn waajur mu mm, dem fu bari ba nim jàngi njaareem ci loxoy Serigne Mouhamadou Dem moom nag moom itam ci taxawaayam ci ëttub Serigne Touba Cheikhul Khadim ginnaaw Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadal sëñ Abdou moom moo ñëw nekk ñeenteelu xalifa xaadim rasul laataa muy toog toogaayu Cheikhul Khadim moom moo nekkoon imaamu jumaay Touba ci ndigalul magam sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom it mu def taxawaay bu am solo ci Touba laata muy toog toogaayu Cheikhul Khadim yàggu ci fukki weer ak benn yu teg ñaari fan rek la ko toog waaye lu ko jiitu nag moo nekk imaamu jumaay tuuba wutu magam Cheikh Mamadou Fadal ci bëccëgug 9 ci 1968 ba ci bëccëgug 13 mai 1990.

ànd kook magam Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacke képp koo xam ne bàyyi koo na fi moom mu jullee la ba tax na mag ñu baree baree baree bare mën nañoo wax ne Serigne Abdou Khadir moom moo leen jullee waaye ñu defaloon ko loo xam ne nii itam lu jafe la mooy kum jullee doo lakk wala kum jiite julli doo lakk ba tax na ñu baree bari doon nañ taamu mu jiite leen li nga xam ne moom mooy julli moom nag moom moo nekk fii moo doomam di ab taawam di kuñ doon wax sëriñ Moodu Abdou Khader te mu fayee ko yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam moom mi ngi wuutu sëriñ Abdou Khader ci bëccëgu mooy 13 mai 1990 dëkk bu ñuy wax Bustaan te sëriñ abdu Lahad joxoon ndigal sëriñ Mbàkke Soxna loo ngir mu goral ko sëriñ Abdou Khader foofu la ne woon féeti woon fa foofu itam la génnee àdduna ñu jëlee ko fa moom sëtub sëriñ Maxtaar Bintaloo bi ak Cheikhul Xadim bi di ki nga xam ni tim jambar la won ndax tay magul seigne Abdou Khadir su tole fi ginaaw yalla bayna ci wam solo seigne Modou momu nak di nek tawop seigne Abdou Khadir mom lañ denj fi mu tëddaale fi ak wajurom ci le 3 août 2003 yàlla len suñ borom fay way seenu barke seenu leer itam yàlla ko suñ borom ci ñun ñi fi desandi ci aduna bi. إذا طلبت من الله جلبا وإن زرعت